bon maa ngi tudd maa jigéen doy Leuz sama grand frère la. bon Leuz ak ak euh, defoon na ay quelques blessures rek mais actuellement il se bien alhamdulilah. Ah, il est hors de danger si il est hors de danger. maa ngi man ma yaayam. Mhm. waaw xaritam yi moom macha allah ñibbi nañu moom ku ne dem na seen kër. Euh, ñun ñu woowee dañu wax ne dafa def choc. Euh, doon dem euh, concert Joal si moom ak euh, trois amee mi mu àndaloon ak chauffeur bi waaw waaw macha allah ñoom ñëpp kenn gaañu si ay quelques blessures yu tuuti rek mais ça va léegi si il se porte bien waaw kii moom woo Mbaye Sarr mooy ki ma lay rek seen staff bi la bokk moom woo moo wee nag tiit naa quand même xale yi des dañu nëbbatu ni mu nekk duñ la ko wax waaw ni mu nekk duñ la ko wax dañu nëbbatu mais quand daal sant yàlla rek comme daal amul dégâts sant yàlla daal sant yàlla bu baax a baax a a di leen jaajëfal nag lu bëri taxawaay bi rafet na trop. Mhm. trop trop trop waaw. si man moom je pense que c'est c'est parce que dogal na rek lu waroon am rek. loolu lañ jàpp si. même xamul ma la mën expliquer yëf daal li mu kii wax rek nañ ko teg rek la si loxo yàlla man si lépp si cadre yàlla laa ko mhm. parce que lu war am day am. Mhm. yàlla moo ne woon lii day am day am mënu si dara man it mënu ma si dara ñu teg lépp si loxo yàlla nag yàlla may koy wér rek ba mu delluwaat si sagoom barke Seydina Mohamed barke Serigne Babacar si waaw. bu dee lu waay def it lu waay def boppam rek waaw. mais man daal xalaat naa ne daal mbiru yàlla rek la loolu laa xalaat daal. man daal lépp yàlla laa ko teg. lépp yàlla laa ko teg waaw mooy remercier nag yi mu àndaloon. parce que depuis Lamine Dóor ba léegi ñox moom sonn ñu tàyyiwul. démb maa ngi déggante ñoom 22h ba 7h du tout temps maa ngi waxante ñoom fu ñu toll ñu ngi may wax. fa dëgg yàlla yal na yàlla guddal seen fan xale yu am jom lañu. ñu jàppante daal man sax seen ànd bi dafa daw sama yaram yàlla xam nag. seen ànd bi dafa daw sama yaram dañoo bëggante jàppante. waaw ah, na ñu yeggale seen ndaw nag barke Seydina Muhammad képp ku jéem si ñoom rek yàlla bu mu sotti mm-hmm. yàlla na leen yàlla iir mu mm-hmm. leen si minaanam suturaam mi mm-hmm. musal leen nag si yàq képp ku yàq rek yàlla nañu seexlu xale yi si barke Seydina Muhammad ànd gor la ñu ànd nag fa dëgg yàlla ni ñu ñoom sax ñoo ma gën a bëgg Lamine xale yi ñoo ma gën a sax bëgg Lamine sama yaram day daw si ni ñu àndeex moom fépp fu ma war a taxaw rek taxaw nañ fa fu ñu nekk man du ma xalaat dara yàlla xam nag di leen gërëm di leen sant nag seen taxawaay rafet na trop trop trop yàlla bu kenn xaj seen diggante barke Seydina Mouhamed barke maam Alaaji Maalik barke Sëriñ Babacar Si waaw ragaluma dara tant que mu ngi ànd ak ñoom rek ragaluma dara yàlla xam nag seetlu naa leen seetlu leen seetlu leen ànd bu rafet lañu ànd ak ñoom dafa dëgg yàlla 10 heures laa commencé di woo tax ñoom ba 7 heures du matin fu ñu toll di ma wax fii laa toll fii laa toll fii laa toll xam naa ne moom nit ku baax la ku am yar ku am teggin lu mu am bokk nag ak man ak ay rakam yi fu mu bëgg dem daal yàlla na ko fa yàlla yeggal yàlla bu ko kenn dogaale nag yàlla bu ko kenn dogaale barke Seydina Mouhamed waaw li ma la wax rek lépp si xam nga du ñu wax lépp lépp daal nañ ko teg si cadre yàlla rek mais daal yàlla nañ ko bàyyi daal mu yeggale sagom barke Seydina na si ñëpp jàppare ku si bëgg jàppare na si jàpp si combat bi lépp kenn du ko wax waaw mais képp ku jéem daal li nga jéem yàlla moom sotti yàlla na ma ko yàlla laqal fa yàq yeggu yàq yeggul barke Seydina Mouhamed mu yeggale nag li mu mëbët yàlla na ko yeggale war fayal dañ ko war a fayal ñun bu ñu sañoon du dugg sax si lii. mais ku ne ak sa destin. ñun du lu ñu bëgg de mais destin am la dañ ko siy jàppale. waa ñu bàyyi ga rek mu dem yoonam daal. waaw képp ku jéem si moom lu baaxul daal yal na la yàlla faxas daal ba li ngay bëgg a du sotti barka Seydina Muhammad dañoo fay jàng nag kilifa yu fay jàng lañu. xalaatuma ko woon sax fii yàlla xam na ko barka salaatul faatiha xalaatuma woon sax ne si lay nekk. mais option am la mënuma si dara. waaw ñun bu ñu sañoon day tranquille rangé wu toog fi nit ñi toog. ñun bëgguñu sax ay affaire wu ngistal nii bëgguñu affaire publique mais loolu la yàlla dogal si moment ñun mënuñu si dara. yàlla yàlla yeggal yàlla na yeggale daal. waaw barke Seydina Mouhamed barke Serigne Babacar Sy.